moo am ay mort waaye troisième mandat dañ ko fi teree. Mhm. mu lànk xoolal waa waa waa Nations Unies ONU Union africaine ba ci waa CEDEAO ñoom ñëpp naqaru nañu coup d'état bi ba noppi di sàkku nag ñu bàyyi Condé mu ñibbi Condé ku duñ toll nii fu ñu koy bàyyi mu ñibbi duñ téye ba mbir mi gën a. ak fan la jëm sax na. waa ñoom fan la ñu nekkoon ñoom organisation yi bi Condé di def la ka neex ci dëkk bi. Ah, merci beaucoup Yaas ah, ah, Yaas tu as <laughs> def ko dix. <laughs> non Yaas yaa bëgg a ëppal de oui ma Yaas. wuy cinq rek. jogoy de te mu ne nii wala mu ne nii. na nooy. dara la wax wala bu continuer ñëwal ñun nga xam ne rap l'oméga alpha. Mm-hmm. kay. Guinée yi nekk Ndakaaru Ndiaye jël Diop. waaye yow am na beneen journal bu wax ne même Guinée yi nekk Labé ak Conakry mais ñëpp doon jubilé. Mm-hmm. bu dee woy mbootaayu xeet yi dañ koo naqarlu. Mm-hmm. le nouvel homme fort de Guinée Mamadi Doumbouya waaye def na jaloore. waxuma ko waxuma ko grand place ñëwal ñun ci jaloore ji nga xam ne moom lañ defar démb Omar. Omar Gueye démb dañu ko yuuxoo ba mar. non non non non non bu fi indi non non garaawul waay bàyyi ko waay. s'il te plaît yow tamit. Ah, ma. te andi woo carton yi de. Ahmed waxal ak Omar nag. Omar dëgg ko dégg naa dañ ko yuuxoo. non la de woon ko noonu. fa mu demoon même même Sangalkam ay ay morsoy xonq. ay Omar Omar Gueye dañ ko faa yuuxoo yuuxoo yuuxoo yuuxoo ba mara di taali ba suba bi di ñëw ak ñun ci. dumbu yaa ngi nii punkal mi le ñun tey indil fii Alpha Condé tey moom Omar doo toog demal rek yow moom demal rek ak sa ndox ak sa yuuxoo sa inondation dumbu yaa ngi nii dégg nga daaneel na Alpha Condé. Mm-hmm. waaye mais dumbu yaa dégg li mu wax. Mm-hmm. waaye dindil ma kii yow dégg nga na mais du coup li xew démb. Hmm. du coup d'état. ana doon. xam nga lan la est-ce que. Hmm. na raay jub. mais na raay jub la mi ngi nii moom lañ bëgg a door mu ngi nii nee na ce pas un coup d'état mais une action inaugurale vers un état de droit. déggoo ma de <laughs> yow gisagoo dara sax xaaral rek dégg nga voilà Pape Sarr ngi nii. dal na ci kaw waa yeewee askan wi. Hmm. la mu jàpp daal mbirum tappale la. Macky Sall nag na ko leer ne troisième mandat moom ci mim réew déedéet mais bilan wu bilan wu bilan wu Macky ci boppam dafa catastrophique Ahmed Youssouf Ben Saloum candidat la Kaolack ci man candidat yi ca Kaolack candidat yi Kaolack na rañoo bari ak jóor sëq ak jóor suñ ko diñee ci troisième mandat baa ko yóbbu su ma naan suul gaz du ko teree xeeñ troisième mandaa dañ ko fii teree am ñuy rey dañ ko fiy teree fii ci mim réew suñu tund wi alpha boo gëntoon ne le temps boo gëntoon ne lii boo ko ci dugalee fii ngay mujjee <laughs> sa chemise bii danañu dindi bouton yi. xolli ko costume nga ñaax jël say tànk teg sa kaw sa fa tey. moom est-ce que demoon na sax ba Sidi va à l'école daa mel ni yëngu tamit de. bañ a Sidi va à l'école sur ce a ñëwoon ñun ci mais xoolal xoolal xoolal xoolal euh, foofu. Mm-hmm. Euh, euh, nu mu tuddati xam nga vidéo bi lan lay fàttali gars vidéo wu Laurent Gbagbo booba 11 ah avril gis nga ko 2011 mi ngi nii troisième mandat bi nag mooy la goutte de trop dégg waaye kii nga xam ne moom expert en stratégie politique la alkaali benn Mohamed moo doon liggéey ak moom ci élection 2010 mais nee na xanaa xamoon ne Alpha Condé moom moo créé woon benn force spéciale pour xeex ak terrorisme gi hmm. ba mu demee ba sentir menacé te la xëcci nag force bu njëgee nga ndekkate force boobee mooy dooni faiblesse am bu ëllëgee hmm. moo koy daan dégg nga de le soleil yéen kay ñëw ak ñun ci président Condé Condé maa ca loxo takk der Union africaine ak yooyu da na a mer kuy defati troisième mandat ngeen wax ko dëgg boo leen bañ mer réew ngi nii nee na de alpha à de cent à zéro kii vingt la amoon devoir wala passé bii di ñëw zéro da doon tappale troisième mandat fi dul am le quotidien yéen kay ñëw ak ñun ci gis nga Afrique de l'Ouest li ma doon wax léegi nii xoolal une zone de turbulence institutionnelle mais xoolal ay Mali mais xoolal suñu tund yi nii suñu tund yi wax ma rek kan moo fi ànd ak yenn ci ay stabilité moo tax yoro jax li mu wax nee na gis nga <laughs> buñ bañee li xew Sénégal li xew fële Guinée. Guinée waaw am ci suñu réew. Mm. lenn dong la. dawal démocratie te mu nekk nag loo xam ne lu dëggu la. ay démocratie wala état de droit de façade wan l'extérieur ne leen man ak sama waa réew di mburoog soow def say tournée économique mbooloo mi nga transporter ay nit wane ne le peuple est avec moi ana 60 pour cent wu ko ndey. aywa moo jaral laaj. gis nga suñu suñu njiitu réew yi dañ leen a war li jàpp ak ay yem. libération ñëw ak ñun ci Abdoulaye Diop Fall nee na coowal professeur lycée Barguet ji bi ñu jàppoon pour terrorisme présumé. la CNK ñëw ak ñun ci Condé gi nii takk der yoo kon mujj nañ ko faa jëlee critique yéen kaay ñëw ak ñun ci coow li coow li li muy bëree 47 milliards yëpp ñeenti produit yi dong la donc kii <laughs> bu jaay man photo bii ni may def dégg évidence yéen kaay ñëw ak ñun ci Mamour jàlloo Mamour Diallo ngi nii di wane boppam ca élection ya ca Louga dégg nga loolu Condé hmm. nii daanu enquête yéene kaay nee na Condé yéeg teer direct news nee na kan mooy Mamadi Doumbouya le nouvel homme fort ma wax leen mooy kan. mooy kan waaye pourtant jàngee na fi. armée Sénégal waa ji ndekete armée française la nekkoon. Hmm. Guinée ko jëli indi ko ndeke jëli nañ seen musiba. <laughs> dégg nga de foofu. oui Doumbouya ngi nii. armée française. Hmm. Guinée indi ko. mu jege ndekete moos indi nañ seen musiba. ana kuy Dumbuya mi ngi Dumbuya ngi nii ana kuy Dumbuya. ana weer a ngi nii rek bi ñu ko jàppee ay jeunes officiers ñoom ñoo ko libéré. ñoo ko libéré nii. laaj ma kan. ana kuy Dumbuya. mooy samedi bi ñu génne lañ ko libéré koo koy Dumbuya. Ah. journal baa ngi nii. dégg Ousmane Sonko ne xam nga du lu baax. coup d'état un coup ne va pas être bon un coup. Mhm. waaye léeg-léeg mu doon mal nécessaire. léegi léeg ma ne lii baax na pour ñi nga xam ne ña ngay yoot ab troisième mandat xaayaar na ku dégg séeréer mhm. général Cissé journaliste bi RTS dane ko nan nga gisee coup d'état bi am ci Gambie est bon mu ne comment un coup peut être bon kurpeñ ci gémmiñ nga may ma ko nga gisee coup d'état ba am si on peut dire que coup d'état ngi gis Union africaine ONU CEDEAO France États-Unis ku ci nekk di euh, di ñaawlu li ñu woowee putsch mhm. mais avant ngay ñaawlu putsch hmm. euh, li indi putsch bi li indi putsch wala li indi situation putsch mhm. moom nga waroon njëkk lijjanti et tu sais que c'est pas seulement une histoire de troisième mandat ci lu xew lu xew fële ca Guinée troisième mandat daf cee toftalu mais est-ce que tu sais que Guinée sur le plan ressources naturelles minières mooy réew bi ëpp alal ci mhm. Afrique daanaka Guinée tey mënoon naa jàmmarloo ak Nigéria ci lu mu mën doon mhm.